sell ci arrondissement bu Kuccuaba département bu Koumpentoum le cheikh Bass Abdoul Khadr Mbacke demoon seeti njabootu sëriñ Malick Bassine si mu bég lool ci toggin bi nga xam ne kilifa yi toog nañ ko fa ak njaboot gi wax ni ñii daal fexe nañu ba seen dëkku way jur wa gentul benn yoon. mu ne sëriñ tubaa seetal leen ko ba tey. waaye ñun fi bàyyi nag. waaye ñun ñi fi bàyyi. di njaboot gi di njaboot gi. li nu yàlla defalee tawfeex. li yàlla defalee tawfeex. mu ne soppiwuñ mu ne soppiwuñ loola. la sun maam ya nekkoon. ci lañ nekk ba léegi. ndax àll bi. 1930 eh, nangam. 1935. ci lañ ñëwoon sil gii. loolu yàgg na. nee na loolu nag. mu lool li muy wane moo yitte ña jiitu woon. loolu nag. Eh, lu mat cinquante kilomètres. lu mat cinquante kilomètres. dëkk yi fi nekk yëpp. li nekk ci région Tamba. nekk ci région Tamba. li nekk ci région Kaffrine kenn raxunu fi suñuy taalube wala ñoom ñu sanc dëkk yi rek mu ne loolu nag loolu mooy cosaanu yoonu murit ndax loolu la sëriñ Touba santaane woon foo dugg ci biir réew mi ña sëriñ Touba defar noonu lañ ko gore di fa jaamu yàlla di fa defar nit ñi waaye di fa liggéey loo xam ne danañ ca mën a fàggu loo xam ne seen teraangay àdduna danañ ko mën a am te te kat duñ jaay seen ngor kon nag mu ne ni ko sëriñ bi di santaane mu ne sëriñ bi ne loolu lay soññee mooy jaamu yàlla ak liggéey mu ne liggéey nag moom dara jiituwu ci lii rawatina nag ci yoonu murit sëriñ bi nee na mi ngi soññ ñëpp di si ànd ak xel mu dal lool. ndax bi mu fi ñëwee fekk leen ndax mu ñëwee fekk nu fi. nee na gisaat na ne ñëpp jëlaat nañ seen yitte. delluwaat ci àll bi delluwaat ci àll bi. mu ne ni ko sëñ Fallou daan waxee. Euh, dem leen ci ci penk bi. dem leen ci penk bi. te bàyyi soow bi ak waa soow bi. te bàyyi soow bi ak waa soow bi. bu ñu fàttali ko Cheikh Abdoulaye jàmbaar ja. saa bu ñu masaan agsi ci nawet. saa bu ñu masaan agsi ci nawet. day woote ruuj bi. day woote ruuj bi. ba noppi ñaax nit ci sëriñ Saliou moom nee na da koo jëlale moom dundam gépp da koo jeexal ci liggéey bi rek kon nag wàcc ñu loolu ba nëgë ni ba kii fi nekkal sëriñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Mountakha wàcc ñu ko li ñuy digal taalibe yi mooy la sëriñ Tuubaa santaane woon ca njaareem eh, ca wooteem bu boobe boobee yam waxoon ne képp koo xam ne nekk na ci yow képp koo xam ne nekk na ci yow. war ngaa fexe ba sàmm ko. war ngaa fexe ba sàmm ko. kum nekkut ci yow itam. kum ci yow. war ngaa laxasaayu wuti war ngaa laxasaayu wuti ko. mooy moom sa bopp. mooy moom sa bopp. man sa bopp. man sa bopp. ak manal sa bopp. ak manal sa bopp. ñett loolu. waa nee na loolu. ndax lu ci ne da koo firoon daa mu ne loolu da koo firoon dafa gudd rek. jotaay bi laaju ko. te jotaay bi du nekk itam laaju ko. waaye waxoon na ne. waaye waxoon na ne. loolu mooy lii tax tax a mucc. ku la mënal sañal la. ku la mënal sañal la. te kale te boobaa yàlla nay kala war a sañal. mu ne te boobaa kat yàlla nay kala war a sañal. kon nag kon nag na ci ñëpp góorgóorlu. gën cee defaat yitte. te xam ne jaamu yàlla. ci bi liggéey ci biir jaamu yàlla. mu ne liggéey mii ci biir jaamu yàlla la bokk. sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax. di sant njaboot gi fi nekk gépp di ñaan yàgg fee ñëw. nii ñu ko defee. at mu nekk ñu defee ko noonu. ci barkeb Sëriñ Touba. Serigne Bassirou Sy di kenn si njaboot gi waaye it di kilifay politique ci APR wax ne gan gi nga xam ne Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké ñëw na ko def fii ci Sile jur na ci ñoom mbégte gu rëy lool la. département Koumpentoum Sile Serigne tool yi sama baay moo ko daan béy si Aliou Sy man mii moom maa moo tax ñu ko béy tool yi seen yëpp lii fi yëpp noo ko bay noo ko di ko béy ci loolu lañ nekk dundal liggéey bi comme ni ko sëñ bi bëggee ak béy jaamu yàlla liggéey. comme ni ko ñëpp santaane kilifa yi suñu kilifa yi diine santaan ko kilifa adduna santaan nañ ko président Macky Sall nee bay mi ngi day jàppale béykat yi ñu si mbay bi kon nag na ñëpp xam tool yi jot na na ñëpp dawaat tool yi ñu liggéey liggéey ngir Sénégal jëm kanam ngat ngi moom sëñ si ma sil Serigne Malick euh, sil Serigne Malick dafa ko doon def ren ji mu ñëwaat fekk si ma fi am fi ñaari fan ak man tey jii ñu xëy nag mënu dee xëy si liggéey kon ñoo ngi fi ci tool yi nga xam ne bii samay samay tool la mag ñoo ko seqal ñu ànd ko béy muy suuna si ngeen seen néeg dugub gerte geeg lépp ci ñun ci liggéey lañ ne loolu daal mooy li nga xam ne yàqu ñu daal kon ñu ngi sant yëpp yëpp leen gërëm Cheikh Bass Abdoul Khadr a def fa fee ci sell benn fan bu tegal laata muy dellusiwaat fii ci Touba bàyyi ak ñi nga xam ne ñoo nekk fa fee ci sell mbégte mu amul aw dayoo